ba bu subaa dina bëgg lu mu wax ñëpp gëm ko. donc baat pour man loolu la def te li ma gën a neex si waxtaan bi mooy ñi ko doon xas ñëpp naa ko meeru xeexkat nga meeru xeexkat la ñuy fal Dakar du day day yàqu Dakar du changé tey wane nañu ne man sama rôle sama cër man en tant que maire Dakar wala sama en tant que Barthélémy Dias Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. bokkul te loolu nag foog nga nekk un socialiste ñu formé la pour mën def la part des choses mais am na ñu naan tout saa pour ça maanaam coow li xët-xët bi xëccoo bi ba tey jii nii li li am est-ce que njëkkee woon ko gënul wala comme ni ko maanaam euh, de le départ ñu ñu ñu ñu àndandoo ci ci jàmm ak salaam ku nekk def say fu bopp la faute c'était à quel niveau Barth moo yoroon xelu xale waxee léegi wala Macky boo xelu xale maanaam doon manifester tout le temps doon bañ doon xëccoo mosul jàppante Macky Sall mosul jàppante heure bu jàppante rek ak action politique la ñëpp décidé ko mu ànd ci l'affaire Ndiaga Diouf on sait tous que une affaire qui dure qui dure dix am na lu lu lu ci xew. mais affaire Ndiaga Diouf Barth li mu si def moom def si dara. non li wax mooy euh, ni mu sàkkoo appel waxtaan jamono jii nii. waaw mais est-ce que teeloon koo def gënul. mais attention waxul ne dañu waxtaan affaire Ndiaga Diouf. dana intéressé woo sax xam na ne il sera condamné. voilà donc Barth li wax leer na. c'est que mm-hmm. Barth moom mbiru Ndiaga Diouf lu lu ñu lu ñu teg Barth la tooñ ko fitnaal ko topp ko ci loolu la mais ba léegi dialogue bi. déggoo fi mbiru Ndiaga Diouf te Barth bu soxoon négocier du du tëdd kaso du tëdd kaso la tëdd kaso bëriwul si du ko xeebal mais bëriwul ah Barth am ku njëkk à part Guy ma gis mu dugg tout le temps kaso <laughs> Barth je veux bi lañ ko ci condamné mois je pense waaw mais ferme kese la woon un mois prison dafa metti waaw loolu dëgg la te Barth dugg na kaso duggaat kaso Barth nee na ma un jour tëdd euh, kaso un an moo ko gënal sax tëdd hôpital benn fan juste pour dire que tàmm na ko. du xam ne lu kii la ci moom et puis jamono yooyu fekkoon ne tey bi mu génnee bëggoon a négocier du def appel. Mhm. baat ma dul appel baat ma def appel fekkoon daa bëgg négocier Macky Sall lu muy def appel def appel xam nga nit ñi li nga wax ngeen baal ma si kàddu gi même bu dofee. Mhm. nopp yi koy déglu ñoo a wér. ñoo war a wér. baat amul benn intere tey di jëlee Macky Sall affaire affaire affaire kii affaire Ndiaga baat pour man. li ko soxal tey mooy candidat yi nga xam ne dañoo war dem jongante ji ci élection élection yi ak code bi ñu xoolaat révisoire code électoral bi ak fichier bi ñu xoolaat ko tegaat benn core boo xam ne day mën a kon élection yi indépendant te du bokk ak ministère de l'intérieur loolu moo ko tax a